mbokk yi ñu ngi ñu ngi fii seen émission yoon wi ci dallukaay bi nga xamante ne mooy dallukaay euh, les démocrates réformateurs di fi dalal président Modou Diagne Fada fii ci canal 4 président ñu ngi lay nuyu ñoo nañ sa dallukaay. waaw waaw yéen ngi fii ci suñu euh, dallukaay muy euh, permanence su LDR Yeesal nekk ci imprimerie Montero muy canal 4. jàkkaarloo ak canal 4 bi angle avenue Cheikh Anta Diop mu nekk dallukaay bu nga xam ne nag. Euh, day wane rek ne LDR Yeesal nekkul ci ay caaxaan ndax parti mag na ko euh, parti njëkk na ko juddu te amagul dalukaay kon nag ñun bu ñu amee dalukaay tey jàpp naa ne euh, signaux yi la rek yi ñuy wan Sénégal yi ne jóguñu pour foo jóguñu pour caaxaan dañu jóg pour bokk ci langue gi bokk ci bëre bi te di ñaan nag yàlla may ñu ndam. waaw ñu ngi lay gërëm ñu di la jaale ci turu groupe Futurs Médias yëpp xam nañ ne. jamono fan yi ñuy génn ñàkk nga sa waajur bu jigéen di ñaan yàlla xaral ko aljana loolu terewul nag sax tax nga yëg nga yëg fit groupe Futurs Médias nga may ñu ñu waxtaan ak yow ñu ngi la ci gërëm di la sant di la jaale ki nga xamante ñoo ko bokk. waaw waaw loolu ñoo ko bokk soxna si yàlla nañ ko yàlla fayal euh, yàlla na ko yàlla xare àjjana. ay jullit lañu euh, nangu nañu dogalu yàlla bi. Euh, li ci des nag moom yàlla nañu yàlla yàlla nañu yàlla may euh, gudd fan ak weer bañ mën a toog euh, lu yàgg yàgg di ko ñaanal moom ak ña nga xam ne ñoo ñoom la fa fekk moom ak ña nga xam ne ñoo ko fa fekk. jërëjëf président bu ñu waxee yaay président groupe parlementaire les démocrates libéraux ñu gis ne fukki fan a ñeent ci weer wi di weeru octobre bi lañuy ñuy yeesalaat euh, bureau yi yow fas yéene waat nga nekk candidat pour président bureau bi wala. non non nee naa déjà moo ko waxee mat na ay weer yu bari ci ginnaaw xaj na fan yi rek la coow li yëngatuwaat ma ne ak suñu parti man ak suma parti ak ñi ñu bokkal parti bi yépp euh, bi ñu waxtaanee natt daal ñu ne. Euh, du nu présenté waat candidat ci bureau bi nga xam ne moom lañu jëm muy bureau bureau assemblée euh, nationale bi euh, li tax ñu ne duñu ñu présenté waat candidat yi tamit li ci ëpp solo mooy daaw 13 octobre bi ñuy renouveler bureau assemblée nationale yàlla dafa dogal booba ñu nekkoon ci biir PDS nekkoon fa kàngaam yëkkati fon fa nag coow mën nañ ko wooyee noonu yëkkati woon fa débat muy nañu yeesalaat banqaasu parti bi nañu yeesalaat euh, règlement intérieur ak texte parti bi nañu yeesalaat programme fondamentalu parti bi nañu yeesalaat banqaasi parti bi euh, coow loolu ñu yëkkati woon ci biir parti démocratique euh, sénégalais nag am ñu nga xam ne dañ ko déggiwul woon noonu ba tax ginnaaw bi ñu mu yëkkati ay tooñ yëkkati ay tuuma yëkkati ay saaga teg ko suñu suñu suñu der commencé yi tamit euh, cër yi nga xam ne euh, moom la ñu yore woon ci biir parti démocratique sénégalais ñu commencé di ko di ko nangu ñun man ak ñi nga xam ne ñoo àndoon ak man ci ne nañu yeesalaat bànqeesu parti bi alors bi ñu commencé nangu cër yi sax waxuñu woon dara parce loolu njiitu parti bi mën na ko def heure bu nekk waaye nag bi ñu demee dem ba nga xam ne euh, dañu ne dañuy jël euh, groupe euh, présidence groupe des libéro et démocrates te ñun ñu jàpp ne li tax ñu wax ko rek mooy ñun nee nañu nañu yeesalaat banqaasu parti bi te jël giñ ko bëggoon jël yi tamit waxtaan lalu ko diisoo lalu ko woon ñu ne nag loolu duñu ko nangu parce que kuy def politique aussi doone rek lu ñu la teg nga nangu ko soo jàppee ne li ñu la teg jaaduwul Euh, sañ nga ko sañ nga ko bañ parce que parti démocratique sénégalais lañ doon euh, lañ doon wax kon kenn ku nekk war nga am droit am sa position am sa am sa gis-gis di ko di ko défendre alors loolu nag bi mu taxawee ni mu war a bi mu loolu bi ñu ko waxee nag gars yi ne déedéet jël règlement intérieur assemblée nationale dem waxanteeg ay député waa réew mi waxanteeg yeneen député ñëw ne dañu fay jële ci force ah ñun tamit ñu sukkandiku ci règlement intérieur assemblée nationale bi nga xam ne mooy may président groupe bi nga xam ne mooy génn pour moom mu déposer modification yi ci bureau assemblée nationale ñu sukkandiku foofu ba yàlla may ñu dem seen seen seen kaw coow li bari woon trop nag euh, ginnaaw bi xañ na bu coow li bari woonul sax ginnaaw bi ba ma ko jëlee ba pare une semaine après wala deux semaines après mënoon naa ko tegaat ci kaw euh, taabal ji waaye nag ñu pare ci loolu coow li départ wax ji manifestation yi foulard rouge yi ah xam nga gor nag kenn du ko tañ-tañal boo ta bu ñu taxawee noonu nag am taxawaay boobu man tamit euh, ma doon leen doon wan ne ñun lu ñuy defi tamit ci kaw suñu teeyaayu bakkan lañ koy def waaye duñ ko def ci kaw pression que pression bi lu mu metti metti metti mënuñu woonu tax ñu jóge ci poste présidence groupe bi maintenant dem nañoo dem tey ba lépp calme na léegi coow amatul wax amatul euh, brassard rouge amatul pression amatul ma ne leen ñu ne leen ñu bëgg leen wan ne comme ñun dañu lancé woon defi rek defi la ñu lancé woon ñu relever nañu ko tey ren jii nu toll nii d'abord ñoo ngi ci suñu bopp parti bu bees muy LDR Yeesal donc bokkatuñu ci parti démocratique sénégalais du caaginu nag ñun ñoo génne suñu bopp ci parti démocratique sénégalais dañu ñoo dàq ci biir parti démocratique euh, sénégalais ndax bu ñu fa dàquloon kon ba nëgg ni ñu nga fa di euh, xaj na di nekk fa di mbii cooka mbàllook ñoom mais en tout cas ñu nga fa woon ba léegi mais comme dàq nañu nag ñu taaxeerlu taaxeerlu euh, lu mat juróom benn weer dàq googu yëkkatiwuñu ko ñu gën a dëgëral dàq gi ca lañ jógee nag sos li nga xam ne mooy suñu parti muy LDRS donc mois d' octobre deux mille deux mille deux mille seize mu ngi ñu fekk ci bopp beneen parti bu bees kon jàpp nañ ne di point de vue moral dootul rafetati ñuy présenter waat di xëccoowaat présidence su groupe parlementaire les libéraux et démocrates teewul nag man ci groupe boobu ci laa bokk. da fay des. ci laa bokk ba tey. Hmm. Euh, teewul aussi yeneen député yu nga xam ne. am na nañu sympathie ci LDR euh, Yeesal dañuy daañu déglu président groupe parlementaire euh, euh, des libéraux et démocrates sortant yeneen député ñoo ñooñu tamit fa la ñu des waaw ce qui veut dire que nag néew ma man su ma bàyyee bopp groupe bi rek diw mooy nekk président groupe. ah oui man Aïda Mbodj man du nekk président. non non c'est-à-dire que kii nekk président groupe parlementaire mooy ki nga xam ne. député yi bokkoon ci groupe parlementaire bi daje nañu tànn ko mën naa nekk Aïda Mbodj mën naa nekk euh, keneen mën naa nekk keneen waa groupe bi daal ñoom ñooy tasante le moment venu ginnaaw bu waxtaan juddoo ngir seet comme man nee naa du ma du ma sampat sama ndënd pour jiite groupe parlementaire bi kan la ñuy tànn pour que assemblée nationale am opposition parce que dama gëm aussi ne euh, loolu suma responsabilité bopp la responsabilité waa PDS si nga xam ne ñoom la ñu seqal euh, groupe bi ak Xaadim Cuun mi nga xam ne mu ngi ci biir euh, groupe bi suñu responsabilité la pour ñu fexe fexe ba opposition am groupe parlementaire assemblée nationale. mais tey tey bu la Aïda Mbodj waxee ne moom dafa bëgg a nekk euh, candidate da ko jàppale. non mën naa nekk man am benn problème ak. présidente comme mën na bañ a nekk aussi. Euh, non non non non non non non non c'est-à-dire que am benn problème pour que présidente Aïda Mbodj nekk présidente groupe euh, parlement doon loolu doon loolu mooy mooy débat bi diggante man ak présidente Aïda Mbodj amul amul problème personnel la preuve et je profite de l'occasion pour santaat ko bi sama yaay génne àdduna délégation la def bu rëy a rëy jógee Dakar ànd ak waa Bambey. ñëw ba daaru mu si jaale ma jaale sama waajur. est-ce que loolu du appel ëllëg nga mën ko jàppale. pardon est-ce que ko pour ëllëg nga mën ko jàppale. non non non non non bu dul woon man sax présidente Aïda Mbodj seq naag lu nga góor. kóllëre ak ju nga xam ne su soxnaam génnee àdduna dafay ñëw jaale si ko jàpp ma ne loolu loolu loolu jàpp ma ko mais en tout cas. wax rek ni amul problème personnel. sunu hmm. sunu diggante. mais léegi groupe bi groupe bi bu amee beneen beneen candidat bu amee beneen candidat. waat groupe bi waxtaan. waat groupe bi waxtaan. tey boo xoolee groupe bi fukk ak ñaar ñoo ci ñoo ci des fukk ak ñaar yooyu nga xam ne ñoom ñoo des ci groupe bi ñoom ñooy toog ñu waxtaan gis ne diw wala diw wala diw kan moo ci mën a nekk yaakaar naa ne bu ñu jiitalee kenn jël beneen député teg ci muy vice président jël beneen député jox ko commission bi nga xam ne moom la groupe bi war a am mais daal normalement daal warul am warul am problème. mais est-ce que amul contradiction nga bëgg a des ci groupe parlementaire bi te yow gis nañu am nga beneen coalition boo xamante ne mën nañ ko tuddee OPEP euh, ci nga bokk ay ñoom euh, ku mel ne Alioune Sow Souleymane Ndéné Ndiaye nga beddi waa PDS est ci non amul amul contradiction ci ci loolu EFOP bi nga xam ne moom la ñu taxawal euh, man ak suma frère Souleymane Ndéné Ndiaye ak suma rakk Sow ak Mokhtar Sourang ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi ci biir e euh, EFOP loolu mbirum politique la mbirum euh, processus électoral lañ ci doon waxtaane bokkul ak mbirum assemblée nationale assemblée nationale institution la mbirum république la du mbirum parti du mbirum coalition politique ñu bari bari léeg-léeg dañ naan groupe parlementaire u PDS déedéet PDS amul groupe parlementaire assemblée nationale euh, parti socialiste amul groupe parlementaire assemblée nationale APR amul groupe parlementaire assemblée nationale la am assemblée nationale mooy groupe des libéraux et démocrates ay députés yu nga xam ne il se réclame du PDS ña nga fa tey ay députés yu nga xam ne il se réclame de LDR Yeesal ñu nga fa tey ay députés yu nga xam ne il se réclame du parti de Khadim Thioune ñu nga fa tey tout comme Benno Bokk Yaakaar tey soo demee ay député nga fa yu nga xam ne il se réclame de l'APR ñu nga fa ay député yu nga ay député nga fa yu nga xam ne il se réclame du parti socialiste ñu nga fa ay députés yu nga xam ne il se réclame de l'AFP ñu ngi ci biir Benno Bokk Yaakaar donc groupe parlementaire doit faire parti politique mais affaire député la te loolu tamit. mais mais euh, ay ay ay ay parti politique ngeen di jot foofu. aussi waaw waaw d'accord mais xam nga loolu. bëgg sama pour laaj la loolu mooy euh, dañuy ragal ñoom comme nga bokk seen groupe parlementaire àndoo ak ñoom. ñu ñu ragal la sax seen biir di wax yenn yi parce que ñaan ah comme àndul ak ñun euh, mën na sax utiliser arme yooyu contre ñun. <coughs> non mënuñu fa biir groupe parlementaire mënuñu fa wax dara lu jëm ci. budget lu jëm ci assemblée. budget bi budget budget budget budget bi nu ñu ciy voté. ensuite bu ñu am premier ministre fu dee ñëw di def déclaration nan la ñuy séddoo temps d'antenne bi wala boog commission bu amee ñan ñoo ñu fay représenté donc mun ñu fa wax lu nga xam ne dina sensible ba tax ay nit yu bokkul parti man ko bañ a mën ko bañ a seq. gis nañ ne yow na nga opposant nga mais Manko euh, watu Sénégal kenn gisu ci Modou Diagne Fada. waaw suñu parti LDR/Yeesal mu ngi ci biir Manko watu Sénégal. Euh, xam nga Manko Wattu Sénégal bi ñu koy sos jamonoy campagne au conseil des collectivités territorial la woon jamono boobu la ñu ñu contacter ne dañuy taxawal benn plateforme opposition bu nga xam ne ñëpp lañ bëgg ñu bokk ci bon déjà bu ñu nekkuloon ci opposition bi euh, initiateurs yi du ñu ñëw jël ak ñun contact ci jàpp naa ne euh, yi tamit suñu position leer na ñëpp ne. LDR Yeesal mu ngi ci biir opposition bi ci biir euh, langue opposition bi ci Sénégal alors maintenant li tax suñu teewaay nag ñun personnellement euh, gisaguñu ci ndajey euh, Manko Wattu Sénégal mooy ba ñu koy sos campagne au conseil des collectivités territoriales ma nekkoon ca ndax suma parti suñu parti daf ci daf ci engagé woon donc mm. mënu woon fa bàyyi campagne bi di dem si réunion bi bi ñu mais ci bis boobu bi ñu ko njëkkee def Ababacar Ba ancien député maire Xombol moo demoon teewal fii euh, LD teewal fa LDR Yeesal ñaareelu réunion bi aussi <clears throat> bi ñu koy euh, bi ñu koy def fekk ma fi ma ma. délégué ma ma délégué waat docteur Pape Biram Ndiaye mu dem euh, teewal ñu fa depuis loolu d'ailleurs docteur pap Biram njaay moo ñuy représenté. ci réunion manko wattu wattu wattu wattu Sénégal commission yi nga xam ne taxawal nañ ko yëpp muy commission femme commission jeune commission réflexion commission yëpp désigné nañu <clears throat> responsable LDRSL yi ñu fa war a yi ñu fa war a teewal teewal hmm. alors maintenant malheureusement ginnaaw bi nag la tiis bi daal sama kaw muy suñu yaay génn àdduna donc mënaguma woon a bokk ci activité te dëj boobu consommé wu ko ba mu ba mu jeex yaakaar naa ne suñu ñàkk teewaay ci yenn euh, ndaje yi yaakaar naa noonu rek la noonu rek la la te fekk ñeent fukki guddi yi jàllul dafay jafe nag pour que ñu mën a feeñ ci yenn activités yi feeñ ci yenn euh, mbiicoo yi feeñ ci yenn euh, wax yu wax yu sew sewaan 14 octobre yaa ngi ci marché ba. non 14 octobre yaakaaruma ne personnellement suñu parti dina bokk. suñu parti parti nag du benn nit ah. mais yow laa. waaw déglu non non non mais parti du benn nit parti euh, ay nit yu ay nit yu bari la ah. euh, parti ay jeunes la ay femmes lañu parti doxalin la 14 octobre mooy exactement quarantième jour génn àdduna suñu waajur daf may fekk Daaru Musi ouverture assemblée euh, nationale sax hmm. boo moytuwul mën nañ faa mën nañ faa yeex a agsi mën nañ faa yeex a agsi bu ñu fa dee agsi parce que yëf yi Euh, bu ñu xëyee suba lañ koy wàcceel. Euh, waaw mais marche bi euh, ngoon gi la. marche bi itam ngoon la sel moom mooy li ma wax rek cest que xam nga mooy li ma wax du caaginu sax peut-être loolu mais xam nga loolu daal c'est trop fort. Mhm. nañu bàyyi daal ba quarantième jour maire bi. mais Sénégal dafa toll fu ñu koy watoo tey jii nga foog. waa jàpp naa nag ne fi mu nii Sénégal dañ ko war a wattu. ci naka xam nga wattu nag dafa bari signification ci wolof ah mais suñu wattu mooy sàmm. sàmm Sénégal ñoŋal Sénégal fexe ba Sénégal euh, ñoŋ fexe ba Sénégal euh, dara du ko xotti dara du ko gaar fexe ba Sénégal dara du ci sikk euh, fexe ba Sénégal nañ ko ñu delloo ko ci raay bi jàpp naa ne loolu moo tax ñu ne nañu mànkoo mànkoo mooy nañu booloo ñu booloo bokk ndey bokk baay ngir sàmm suñu réew sàmm suñu askan jàpp naa ne patriote yu nekk sañ nañoo sañ nañoo. kon Macky Sall sàmmul réew mi daal. xam nga Macky Sall sàmm réew mi du du loolu mooy wax ji mais ñun mën nañoo gis ne ñi mu koy sàmmee doyut mën nañoo gis ne ni koy sàmmee du noonu mën nañoo gis ne ni koy wattoo du noonu jàpp naa loolu am nañ ci droit parce que opposition bi la ñu la ñu bokk ñun ñu bëgg ko wattoo neneen bëgg koo sàmmee neneen. nu wute ak moom ni mu ko ni mu koy sàmme ak moom ni mu koy ni mu koy wattoo. yow tey bu ñu la doon laaj réew mi dox na wala doxut. ba jamono ji may wax ak yow réew mi doxagul. ah lu tax ak PSE beeg yëpp. xam nga dama jóge ci ci yoo nga xam ne du am na yu ma dul mais dama la wax ne PSE euh, bis bu nekk ñu laaj ñu PSE mais suñu tontu du changer PSE euh, ma nga yàqoo ca départ ba. di ko ndax d'abord. Euh, boo xoolee PSE liñ ci def ci ay milliards laata ñu koy tëgg cabinet yi nga xam ne moom la ñu jël fay leen ay milliards yi milliards tëgg ko déjà loolu te ña ko doon tëgg xamuñu réalité réew mi ña ko doon tëgg xamuñu réalité socioculturelle réew mi mais comme dafa xewoon boo demee Côte d'Ivoire ñu ngi naan Côte d'Ivoire émergente nga dem Gabon ñu ngi naan Gabon émergent il fallait aussi que Sénégal aussi ñu naan Sénégal émergent alors te nag mbir mi du du du du du du du du noonu donc daanaka ña tëgg fële ñoo ñëw rek defal ñu copie coller tëggal nu tëggal nu benn benn benn programme. benn ñaareel bi su fekkee ne yow da nga wax ne programme bi laata muy commencé jur ay njëriñ deux mille trente cinq la nee nañ deux mille dix huit la ñuy commencé nanga waaye deux mille trente cinq dëgg-dëgg daal ci la ñuy gis ne réew mii dina émergent waaye mais diggante deux mille trente cinq ñaata régime. ñoo fi mën a ñoo changé. ñoo ñoo fi mën a dox ci diggante bi. kon la doon jaadu mooy laata ñu koy tëgg ak nañu ko doon tëggee ñu boole ci ñi nga xam ne dañu far ci langue opposition gi ba ñu fexee fexe ba nga xam ne la ñuy tëgg ñëpp daan ci ànd ñëpp daan ci d'accord bu leen neexee sax ñu jël ko transformé ko loi nga xam ne suba même bu régime bi changé aussi programme bi du du changé mais yooyu yëpp defuñu ko do ce qui veut dire que. tey président Macky Sall mu ngi naan PSE mais suba bu président Modou Diagne Fada ñëwee wala président euh, Amadou fay wala président Babacar Ndiaye su leen neexee ñu tuddee programme bi neneen moo tax ma ne PSE dafa bari ay problème et puis PSE leneen li ci def mooy lépp lu jóg rek ci Sénégal ñu ne dans le cadre du PSE waaw léeg nga dégg lu nga xam ne ça n'a rien à voir avec l'économie rien da ngay gis sax ku dem tëgg course fas ne c'est dans le cadre du PSE wala nga gis ku dem ah, tëgg làmb <laughs> ne c'est dans le cadre du PSE lun gars yi lu ñu jël rek xëpp dugal ci PSE non non non PSE c'est plutôt slogan que lu dëgër lu nga xam ne daal nit ñu mën na maintenant ñun ñun ñun tey par exemple au niveau de LDR Yeesal parce que tamit ñun dañu jóg pour yeesal ni ñuy ni ñuy ni ñuy politique de dañu jóg aussi pour yeesal ni ñuy opposé woo ah ah lan mooy seen yeesal yeesal yeesal dafa jóg yeesal dafa jóg bu njëkk dañu doon wax yeesal banqaas si PDS yeesal euh, programme mais léegi dañu ne yeesal ni ñuy politiquer yeesal ni ñuy opposé woo yeesal ni ñuy waxe ci politique yeesal ni ñuy jëflante si suñu diggante ci ci ci politique gën koo moraliser gën koo teg ci dëgg gën koo teg ci lu wér gën koo teg ci sutura bañ di saagante bañ di xasante bañ di def waxtaan yu nga xam ne sénégalais yi duñ ci gis seen bopp sénégalais yi du leen amal njëriñ ñuy wax ci wàllu économie wàllum njàng wàllum Casamance wàllum lii lu nga xam ne nit ñi mën nañ ci gis seen seen bopp wàllu njëg yu cher yi wàllu électricité bu cher bi wàllu nangama moo tax ñun chargé nañu suñu cadres yi muy les cadres réformateurs pour ñu xalaat ci benn programme de développement économique et social alternatif au programme Sénégal el euh, parce que opposition aussi noonu la opposition warul nekk rek Aliou Sall neexuma euh, Macky Sall neexuma Modou Diagne Fada neexuma déedéet débat personnel ah, wala personnalisé dañ ko war a génne ci ni ñuy politiquer maintenant nag ñoom am nañu programme ñu ngi koy doxal programme bi pour ñun juróogul njëriñ lum programme bi andiwul andil andil andiwul dara yokkute ci koom-koomu réew mi ñun nañu wut programme alternatif ñun suñuy cadre suñuy xeltukat lu pour 300 cadres ñu nga xam ne recensé nañ leen suñu fichier ñu nekk dans tous les domaines domaine boo laal rek LDR Yeesal am na fa ay cadres ñu ngi dajaloo di waxtaan ngir wut un programme économique alternatif au PSE su ñu demee ba tëgg ko ba teg ko ci taabal yi nag lépp lu nga xam ne PSE wax na ko ci domaine bu mu waxee rek ñun daañu wax la ca baax ñu ne baax nañu la nga xam ne dañu jàpp ne dafa dëng ñu ne dafa dëng te mën nañ koo jubbante nii ak nii ak nii mm-hmm. euh, bu ñu waxee wax nga mbirum koom ñu wax ci mbirum pétrole bi euh, mbirum Petro-Tim bi euh, yéen maa ngi ko wattu Sénégal ngeen ne six cent mille six cent milliards le Sénégal perte yow loolu gëm ko waaw xam nga man du ma spécialiste su loolu ma spécialiste su pétrole du ma spécialiste su gaz duma ma spécialiste même économie de façon de façon générale euh, man j'ai appris la biologie à à à l'université euh, donc am na détails yu nga xam ne Modou Diagne Fada munu ci sori par contre ñi nga xam ne ñoo nekk si biir Manko Wattu Sénégal te seen xel màcc ci loolu seen gis-gis màcc ci loolu seen xam-xam màcc ci loolu ñoom ñoo def ay gëstu ba gis ne six cent Sénégal ñàkk na ko ci ci ci ci ci mbir yooyu te man nag tey boo ma laajee entre la waa benn bokk yaakaar di wax ak la Mamadou Lamine jàlloo tekki mi bokk suñu kuréel di wax loo ci gën a gëm dama naa la man li Mamadou Lamine jàlloo wax ci tekki Mamadou lamin Diallo bu tekki lim mu wax laa gën a gëm donc loolu mooy li nga xam ne noonu la mbir mu tëddee maintenant man ko daje nañu xalaat gis tëral benn document ne lii la ñoom tamit dañuy wut seeni expert ñu bind këyit démonter suñu ko mënee li mànkoo wattu Sénégal wax mais tant que démonter wuñu ko li ma mën a jàpp man mooy li mànkoo wattu Sénégal wax moom lay gëm. mais premier ministre nee na ku ci waxati loo xamante ne maîtriser woo ko dañ yóbbu ci yoon. menace la wala dëgg. waaw moom loolu moom dama jàpp ne wax la nii rek mais euh, Sénégal nag quand même réewum démocratie la am na lu nga xam ne moom premier ministre euh, daf koy euh, daf koy wax rek wante jàpp naa ne mbirum yóbbu yoon moom àggaguñu fa ndax nag kenn ku nekk lu la neex nga loo gis gis-gis boo am ci mbir mu nekk su la neexee nga nga wax ko. réew mi nag jàpp naa ne àgguñ fu nga xam dañuy ngalaab euh, gémmiñu nit ñi wala bokk ñu fàtt xelu nit ñi ba lu ñu bëgg a wax wala lu ñu bëgg a xalaat duñu ko duñu ko def te jàpp naa ne waxu premier waxu monsieur le premier ministre ji euh, fa mu waroon a yem rek foofu la yemul bu ko neexee en tant que chef du gouvernement problème jot problème am bu nga xam ne c'est problème qui traverse plusieurs départements ministériels ministre bi mënu cee wax moom dong ministre bi mun ci wax moom dong moom en tant que chef du gouvernement mu jóg wax ci waaye nag la sikk ca wax ji rek mooy menaces yi menaces yi moom moo ci mënoon a ñàkk parce que nag menace dafa warul am ci démocratie menace dafa warul am ci république surtout nag bu fekkee ne yow da ngaa yore doole ji te doole ji ñu yore sénégalais yi ñoo leen ko jox sénégal yi ñoo leen ko jox carte d'électeur yi ñoo leen ko jox ni ñu leen ko joxe tey suba dañ koy jël jox ko ñeneen kon képp ku nga xam ne da nga bàyyi xel ca loola am na nu nga xam ne doo ko doo ko waxe benn parce que bu fekkonte ne premier ministre dong la mu sol costume sol karawaat jaar fii ci mbedd mi pas premier ministre bu ñu wax Mohamed Boun Abdallah Dionne dong la mu jaar fii si mbedd mi jaar fii dugg Gueule Tapée wala dugg Médina wala feneen du ñemee jël micro waxee na mu waxe donc bu waxee na mu waxee rek kiirangaayu état doole état la waxe te nag démocratie boo ci nekkee doo jël doole état di ko waxe doo jël doole état di ko di ko menacer kenn euh, au passage euh, maa ngi koy sant moom tamit parce que moom la Macky sàll yónni woon ci euh, bi suñu yaay génnee génnee àdduna mu ñëw def fa teewaay bu bu rafet wante nag wax jooju mu wax daal nekk na wax ju nga xam ne pour man Euh, la ko yàq daal mooy euh, menaces yi nga xam ne yëkkati na ko teg ko si euh, jëmale ko ci kuje gi. opposition plainte contre Aliou Sall ànd nga si yow. étudier guma ko nag damay wax dëgg rek nag cest à que mooy li ma waxoon mooy wax mooy li waxoon léegi rek lire naa document bi nga xam ne moom la Manko Sénégal produire gis naa ko comme ci Manko lañ bokk nag te Manko démocratie moo fa fay dox. su manko dogalee dara ne dafay plainte x wala dafay plainte y position LDR Yeesal la muy nekk mooy ànd ci loolu nga xam ne moom la manko wattu Sénégal. saa ngeen waxtaan euh, ci tëral non waxtaan nañ ci. waaw ah, waxtaan ngeen ci plainte bi mais. avant même ñuy def conférence de presse gars yi dañoo concerté wu waxtaan ci document bi waxtaan ci la ñuy wax ci conférence de de presse ba te comme bañ koy def suñu ndaw mu nga foon euh, toog bon la décidé ci loolu la ñu nekk ñun. ñu ngi ci biir wattu Sénégal maa wattu wattu wattu wattu wattu Sénégal parce que gis nañu ne ñu ngi dox ay jéego yu baax bien entendu bis bu ñu demee dem ba gis ne ñoom yoon wi ñu jaar bokkul ak ñun yoon wi ñu gëm am nañu souveraineté am nañu liberté génn ci maa ngi wattu Sénégal dem beriwaat suñ beneen euh, kuréel parce que ñun tamit dafa am ñu ñu gisee opposition bi cest du caaginu opposition bi nam daan nekk rek lay nekk opposition boobu nga xam ne dafa archaïque opposition nga xam ne. wax saaga opposition bu nga xam ne wax tooxi doona def tooxi doona taal fii euh, toj fii am na lu nga xam ne valabaloon na 93 valabaloon na 88 mais jamono jii ñu nekk am na nu nga xam ne noonu la ñu war a opposé woo te ñun loolu la ñu gëm ñu ngi ci nag ñu ngi doxal ñu ngi leen di gis pour ñun ba léegi ñu ngi ci yoon bu baax parce que débat d'idées la ñuy teg argument contre argument génne document wax ci jàpp naa ne loolu mooy li ëpp solo te noonu la ñu war a continuer di di di di opposé wu. est-ce que yow tey président Macky warul taxaw ak Sénégalais yi leeral leen ci mbirum Petro-Tim wax mu leer nañ ndax frère bokk na si wala bokk si wala dañ ko war a bàyyi noonu raison d'état. bon xam moom man du ma du ma du ma du ma conseiller président Macky Sall ndax euh, bokkuma si parti am bokkuma si gouvernement bokk ma si euh, coalition moom magum jëmm la. Euh, xaj na tey bu ñu doon wax quel est le sénégalais plus informé président Macky Sall euh, la tudd donc moom mooy xool moom mooy xool mbir mi fi mu toll ba xam war naa wax wala wart wala wart wala wart warta wax en tout cas li ma xam mooy euh, ñu ngi moom daal fi mu toll yi bu ma doon misaal daal mu ngi xeeb xal ca dàgga waaw xam ne yow dégg nga wolof yooyu de mm, mm. mais daal mbir mi nekkul mbir musiba nekkul mbir mu nga xam ne dañ ko war a euh, négliger dañ ko war a négliger ndax euh, boo ko négliger mun na laa bett. Mm. soo ko négliger mën naa jur lu nga xam ne euh, du lu gën ci ci yow donc loolu nag moom moom moo xam ak tarjumaanu boppam nan la ci doxale mais daal du du mbir mu simple. ndax li tax du mbir mu simple mooy Sénégal dañu xaw a sensible ci affaire deret affaire mbokk. Mm. ñun bi ñu fi nekkee Karim Wade la ñuy jox réew mi. Karim Wade moo war a wuute Ablaye Wade moo ñu sànq ci li ñu sànq la bokk. jéem nañu bi dindi wax ne amul ba sonn mais teewul duggoon na ci boppu. Sénégalais yi lii tamit xaw ma lan moo ci responsabilité Aliou Sall fu mu ci toll fu mu ci dugg mi li wér ba moom mooy li Sénégal yi jàpp mooy maa ngi ci biir te bu nekkee ci biir Macky Sall ko ci jàppale kon nag mbir la mu nga xam ne explication dong doyul doyu ci mbir la mu sérieux mu nga xam ne moom ci boppam war na toog def ci taxaw seetlu seet euh, mbir mi nu mu koy lijjantee wala boog nu mu koy fayee parce que nag du mbirum du mbirum caaxaan ndax ay milliards yi milliards yi moo ci nekk et ensuite avenir suñu avenir ñun génération actuelle ak avenir u les futures générations parce que mbirum pétrole mbirum gaz mbir la mu nga xam ne du rek pour ñun ñun daañ dem ba màgget suñuy doom mën ci jëfandikoo ñeneen ak ñeneen man ci jëfandikoo donc du mbir mu simple mu nga xam ne Sénégal yi dañuy nangu rek ay nit aaki moo ko wala Sénégal dañuy nangu rek ñenn aaki moo ko waaw bu fekkee loolu moom dafa am ci bopp ñu mu nekk nañ ko génne teg ko fee te jël mbir yi rek tegaat ko ci. ànd nga ci enquête parlementaire bi yow en tant que député pour ñu bi enquête am na ñu ko wax waa Imam Mbaye Niang wax na ko jubaleeti ko aussi wax na ko. waaw waaw xam mais xam nga mën nañu def enquête parlementaire mais ma daal Sénégal fii. Euh, à suñu législature bi moom nañu nañu ñaan daal mu jeex ak jàmm. ah lu tax. waaw nañu ñaan suñu. législature du ñuy ñoo ko mën a def quoi. no nañu nañu ñaan daal législature bi <laughs> mu jeex ak jàmm. <laughs> déet déet yoo xam yaa ngaa nekk député. <laughs> soo ko waxee laa nekk waaw non dama xam nga député ay ay kii yu bëri non mais dama xam ne dama xam ne dama xam ne. du ñuy ñoo koy def quoi du législature bi moo mën loolu. waaw waaw du fii nii lu gën a simple lii ay nit jéem nañ ko fii taxawal ay commission d'enquête parlementaire demul fenn Euh, jëm nañu fi def ay questions d'actualité ay questions orales kenn étudier wul sax question d'actualité question orale donc du législature bi moo man moo man loolu bii daal nañu nañu nañu renouveler bureau bi mu nekk dernier dernier mandat ñu dem élection législative yi 2017 ñu taxawalaat beneen assemblée bu nga xam ne xëy na xar kanam gi dina wuute ak xar kanamu assemblée nationale bi. bii nu mel bi nu mel bi doxul. bii wax ay la yëween euh, doxul. ay la yëween doxul. parce que mais nag sikk si ñun ñëpp la man am naa ci responsabilité député yu bari aussi am nañ ci am nañ ci responsabilité président assemblée am na ci responsabilité bureau assemblée am na ci am na ci responsabilité euh, du caaginu jëmmum président Moustapha Niass parce que kenn naa tablewul ne jaar-jaaru président Moustapha Niass carrière président Moustapha Niass envergure politique am ak intellectuelle may na ko waxuma la mu jiite sax assemblée nationale du Sénégal mais mu nekk secretaire général de Nations Unies wala leneen donc du du jëmmam mooy problème bi waaye ñun ñëpp ña nekk assemble ña nekk ca majorité ba tout comme ña nekk ci opposition ba ñun ñëpp d' accord nañ ne législature bii doxul. waaw mhm. lañ fa doon xaar daal mooy. gisuñu fa waaw lañ fa doon xaar daal ay la yéwén euh, moom kenn gis ko fa moo tax législature bi moom. Euh, na gaaw jeex rek beneen beneen ñëw. <laughs> beneen ñëw waaw mais ñu ngi wax Ousmane Ngom. nekkoon nga PDS nekkoon nga ministre ne Ablaye Wade dafa doon bëggoon confisquer pouvoir bi bi Macky Sall loolu non xaw amoon nga information boobu bi nga nekkee ci gouvernement bi. waaw d'abord Ousmane Ngom maa ngi koy sant moom tamit parce que ñëw na ba suñ kër mu mu bokk ak ñun euh, tiis bi maa ngi koy sant bu baax moom ak ñeneen ak euh, ñeneen euh, man dimanche boobu ñuy wax maa ngi woon Daaru Musi ku jegewu woon pale ba xam ña fa nekkoon ak ña fa nekkul ak ña fa dugg ak ña fa ña fa ña fa génn mais li am solo mooy gis li ma gis mooy euh, ministre d'État Ousmane Ngom euh, kàddu yooyu mu génne euh, maanaam amul woon amul njëriñ amul njëriñ parce que dafa nekk kàddu yu nga xam ne du ko yokk dara moom du ko yokk dara lu dul peut-être am ay nit yu nga xam ne dañ ko ciy gën a xarab. déet mën na ko yokk dara ndax mën na bañ a dem kër yi. mën na. bañ dem kër yi ci comme Karim Wade li ko lal kaso. jàpp naa ne bu waroon a dem kër yi du loolu mooy tee mu dem mu dem mu dem kër xam nga euh, li ma gis man mooy njuumte la dafa dafa dafa juum ndax dëj la nekkoon di jël ay exemple di wax ci bonne fois mais mënoon a jël yeneen exemple lu dul exemple yi mu jël parce que loolu dafa nekk ay sujets yu sensible et puis quand même président Abdoulaye Wade bokkatu ci bokkatu ci mooy mag la euh, lu mu waroon defal démocratie sénégalaise def na ko lu mu waroon defal réewum Sénégal def na ko lu mu waroon defal parti politique Sénégal parti politique am muy PDS euh, def na ko li mu waroon defal xale yi jigéen ñi def na ko donc moom tey am na juróom-ñeent fukki at bu nga Marseille bu euh, ngay Versailles di di noppalu nañ ko génn ci débat politique bi c'est-à-dire que tey ku mënul wax ngir tagg ko ngir kañ ko ngir bàkk ko ngir li mu liggéeyal Sénégal nga maandu ci ay mbiram dama jàpp ne loolu mooy li nga xam ne moom moo ëpp solo maintenant ñun ñi nga xam ne ñoo fi des ñun acteurs politiques yi nga xam ne ba léegi dañuy am lu ñuy wut dañuy am lu ñu bëgg ñu fàll ko bu ñuy wax ñu wax suñu suñu suñu suñu suñu suñu suñu biir ñu wax suñu suñu diggante mais wax ci sengoor wax ci Ablaye Wade ay wax ci Abdou Diouf pour man yooyu yàq ay wax la parce que du jëriñ du <clears throat> du yokkal askan bi askan bi dara te gëm naa ne buñ te delluwaatoon gaw ma ne ministre d'État Ousmane Ngom dina waxee ni mu waxee keroog bi mu jaale ji mhm. euh, ma fàttali na ñu ngi dalal euh, Mor Diagne Fada nekk président LDR les démocrates réformateurs yeesal euh, président demoon ngeen ci élection au conseil collectif territorial pourtant parti bi yàggul juddu lu tax ngeen beral seen bopp liste bañ a dem ci coalition yi. bi ñu juddoo dañu wax ne euh, euh, yëkk dugg na ci biir gétt gi yow Saalum Saalum nga xam nga yëkk xam nga ne yëkk bu duggee ci biir gétt fu mu jaar nag yi nag yi jàkkalaat seen toogaay mm. loolu mooy LDR yeesal ñu ne un géant est né ponkal juddu na ñi sos LDR Yeesal ay kàngaamu politique lañu ay nit lañu ñu nga xam ne ñu am macha allah expérience politique lañu ñu am ay jaar-jaar ci wàllu politique lañu te ñi ko sos yi tamit ci jéer fukki département ak juróom yi la ñu jógee nekkul mbirum caaxaan te ni ñu ko sosee keroog ku ñëwoon ca jataay ba nga gis ñeent fukki département yi ak juróom kenn ku nekk jóg taxaw yëkkati kàddu ne man d'accord naa ñu taxawal parti LDR Yeesal benn parti du APR du beneen parti laa la wax bu nekk Sénégal bu taxawalee noonu partem gars yi da ngay jékki-jékki gis rek ne juróomi nit fukki nit fukki nit ak juróom daje nañu dem nañ ministère de l'intérieur déposé nañu mais bi ñu koy taxawal dañu gis ay nit jóge ne ah man conseil municipal laa dëkk sàngam man maire laa dëkk sàngam man conseil départemental laa dëkk sàngam donc nekk ñu nga xam ne fu ñu dëkk seen gox dafa am lu fa tekki parce que nag bind nit ci benn liste conseil municipal wala conseil départemental te yaakaaroo ne war na wa koo ko mën naa indi indi indi mbooloo donc ñun bi bi au conseil des collectivités territoriales jotee ñu ne mais ñun li ñu jàpp ne am nañ ko ci ay conseils municipaux ak départementaux ci biir mi war nañoo mën a may ñu bokk ci élection ñaata ngeen toll à <coughs> mais bi ñu watee ba pare am nañ ñetti am nañ juróom benni téeméer. ak ak juróom fukki conseil ah yu nga xam ne ñoom ñoo wote listu LDR yeesal juróom benn téeméer ak juróom fukk nag ci biir Sénégal gi yaakaar naa ne parti bu ndaw du ko am euh, jàpp naa ni itam ne euh, bu fekkoonte ne xamoon nañ ne bu ñu bokkee ci au conseil dañ naan ci fukki département la ñu teew wala ci juróomi département la ñu teew kon duñ ci bokk mais daf ñu leeroon ne lu mu gàtt gàtt ak délai yi li muy xat-xat yépp sax d'ailleurs moo tax war na ñoo mën a teew ci lu ëpp fanweeri département te yàlla na ñuy teew ci fanweeri département ak ñett ci biir Sénégal. sur les 45. sur les 45 te daanaka une semaine lañ ñu lañ ñu lañ ñu mayoon même Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne sax moo yore nguur gi teewul ci cinq département yëpp beneen coalition bi nga xam ne ci la PDS nekk gis-gis nekk ci UCS nekk ci euh, ànd jëf nekk ci yeneen xamu yeneen fukki parti nekk ci teewul ci ñeent fukki département yi ak juróom yëpp donc ñun li ñu li ñu réussir li ñu bëggoon donné rek mooy alerte alerte aux observateurs alerte aux analystes ah attention hein LDR bi n'est pas un de plus nekkul parti bu nga xam ne rek dafa ñëw pour yokk ci affaire yi mais dafa nekk un parti bu nga xam ne dafa am ay reine yu solide dafa am ay base yu solide dafa am ay militants yu mag ay góor jigéen mag ay cadre yu nga xam ne tas nañu ci biir Sénégal que LDR Yeesal yëmul rek daar Moussi yëmul rek département euh, Kébémer yëmul yëmul rek feneen ak feneen mais foo dem ci Sénégal ba Salemata ba Bakel ba Goudiri ba Medina Yoro Fula danga fay gis ay jigéen ak ay góor yu nga xam ne LDR Yeesal la ñuy noyee. Hmm, Kébémer moom mel na ni yéen fa gañe woon coalition opposition bi yeneen ñu loon deuxième. PDS waaw Kébémer euh, waaw Kébémer Kébémer euh, bi ñu tasantee euh, bi ñu bi ñu bi ñu paree ci au conseil bi Benno Bokk Yaakaar moo raw LDR Yeesal moo ci topp. Ah yéen a jiitu woon PDS ak ñu mu àndal. Oh, waaw PDS sax quatrième la jël ndax am na beneen liste bu nga xam ne. moo ko fa jiitu moo ko fa jiitu. dëkk Ablaye Wade. Euh, euh, no xam nga. Euh, bu bu ko jëlee noonu parce que Ablaye sama baay la. <laughs> ah dëkk Ablaye Wade nag fa la dëkk <laughs> nga gagné ko fa. non man ñoom Lamine Thiam laa gagné gagné wu ma Ablaye <laughs> ñoom Lamine Thiam laa gagné mais gagné wu ma gagné ma Ablaye Ablaye parce que Ablaye nekkul woon candidat Ablaye Wade yoonam nekkul woon ci ci ci ci élection yi. Euh, mais euh, ñeneen ña fa nekk sama mag Lamine Thiam ak sama mag ñoom day gay si ñoom laa gagné mais euh, du du du président waat mhm. parce que président ma nekkatul ci ci loolu mais ba ñu wotee ba pare daal bi département mais xam nga nag loolu tamit warul bett. Ah warul bett kenn ñi nga xam ne xam nañ configuration wu département Kébémer. Kébémer daal sa yaa moom la. xam nga Kébémer dafa bari dix neuf commune la mun ma wax ne communes yëpp maa fa ëpp mun ma ko wax. waaye la ëpp ca commune ya mën nañu wax tey jii ne LDR Yeesal moo fa ëpp moo fa ëpp moo ëpp doole. parce ah que nag euh, euh, noonu la mbir yi noonu la mbir yi tëddee dans le département de Kébémer jamono ji ñuy wax ak euh, ak yow xaw ma xam dana soppeeku nag. Mm-hmm. feeg déwén a ginnaaw déwén mais jamono ji ñuy wax yow daal. pris individuellement même APR nga ber ko mu bañ a ànd ak beneen partie nga ber PDS ber LDR LDRSN est la première force politique du département de Kébémer. Mm-hmm. au conseil collectivité territoriale yow naka ko gisee am na ñu ne dañ ko def nii rek chambre de plus la parce que euh, consultation la. waaw loolu loolu loolu loolu loolu dëgg la ñun loolu lañ doon wax ci référendum bi. Mm-hmm. waaw li tax ñu wote woon non xam ngeen LDRSL non la wote woon ci référendum bi li tax ñu wote woon non bokkoon na ci ŋàññi guñ doon ŋàññi au conseil des collectivités territoriales mais Sénat bis que c'est pour caser de la clientèle c'est pour servir un allié non encore servi et cetera et cetera dëgg la mais nag xam nga démo loolu laay wax léegi yeesal yeesal ni ñuy ni ñuy opposé woo ñun opposé woo nañu wër nañu àll bi wax ne euh, référendum bi nañu wote non mais sénégal yi wote wuñ non ñi ci ëpp ñi ci ëpp wii lañu wote alors comme Sénégalais yi dañoo wote wii ñi ci ëpp est-ce que ñun en tant que démocrate dañoo war a wax ne non non comme Sénégalais yi daal euh, ñi ci ëpp wote wote wote wote wotewuñu wotewuñu non li ñu wote ñoom duñu ko def déedéet ñun dañoo xalaat am gis-gis ne nañu def nii yeneen sénégalais am xalaat am gis-gis ne nañu defee ne yàlla dogal ñun la ñu gis lépp ci Sénégal yi gisuñu ko donc suñ dee démocrate dañoo war a randatu ndànk fekk si ñi nga xam ne ñoom ñooy ñu ëpp ci Sénégalais yi xool li ñu wax ñu seet nag léegi loolu ñu wax ñoom nan lañ mën a def nag ba dëppale ko ak njariñu askan bi loolu moo doon expliquer suñu participation ci au conseil des collectivités territoriales Sénégal yi wax nañ ne nañu taxawal au conseil des euh, des collectivités territoriales ñun ñu ne nañu bokk ci jogante bi ngir bu ñu yàlla mayee ndam suñu demee foofu ñu jéem a jubbanti euh, au conseil boobu ba mu gën a jege le maximum possible avec ce que nous croyons être les intérêts supérieurs de la nation. nation. que loolu tamit mooy mooy démocratie ndax tey bu ñu ne woon mais moo mën a wax ne Macky Sall du président de la République du Sénégal quand ñoo ko fal à 65 pour cent loolu tamit nit mënu koo nit mënu koo bañ mais ça ne veut pas dire naa ci ni muy doxalee ça ne veut pas bañ koy fal fal naa ko déedéet damaa wote woon contre. waaye nag tey moom moo fi nekk donc nangu ko warul wàññi dara ci xarañ wala wala agressivité wala boog euh, qualité opposition euh, euh, qualité opposition bi nga xam ne moom la nit ki di di di di mëne mais loolu nag ñun dañ ko war a dañ ko war a aussi di sàmmonte ci li ñuy li ñuy wax démocratie daal dafa metti démocratie mooy ñi ëpp lu ñu wax na ko ñëpp ànd léegi bu leen président Macky Sall boole ci quota bi mu war a tabb su leen waxee jox na la ay poste da ngeen nangu yéen. waaw xam nga yi tamit euh, ndar la ko tabax du buñ la defee nii buñ la defee nii comme ñun kenn woowaguñu ñu dañ leen di boole ci au conseil des collectivités territoriales même bu fekkente ne euh, bi ñu watee ba pare ci fanweeri liste ak juróom-benn yi bokkoon ci compétition bi ñaari liste rek ñu ci ëppale ay conseil muy benn bokk yaakaar ak coalition. taxaw Dakar non non non taxawu Dakar ñun ñoo ko ëppale ay conseillers sur le plan national. Mhm. parce que taxawu Dakar benn Dakar la nekkoon ñoom am nañ on conseillers ñoom taxaw Dakar à Dakar donc ñun ñu am le plan national 650 conseillers muy juróom benni téeméer ak euh, juróom fukki conseillers moom la LDRSL am ci biir Sénégal donc ñun ñoo jëloon troisième sur le plan national. alors même bu fekkee ñun ñoo jël troisième sur le plan national gisaguñu wala déggaguñu lu jógee ci président Macky Sall wala daawam. pour wax ne waa LDR Yeesal est-ce que da ngeen bokk ci au conseil wala déet comme loolu gisaguñ ko nag mais du fi nekk nun di xalaat ak di wax ñun dañu ko ne suñu liggéey rek. Mhm. ci liggéey boobu moo leen yóbbu législative yi da ngeen di dem seen liste bopp wala da ngeen di ànd ak seen coalition bi ngeen taxawaloon fan yi euh, en tout cas li ma bëgg d'ailleurs mooy coalition effort boobu ñu taxawaloon fan yi euh, ñu waxtaanaat suñu biir ba seet nu ñuy euh, recommencer waate suñuy activité. Euh, loolu daf ciy baax sax pour gën a mën a boole suñuy gis-gis ci li xew wattu Sénégal ndax parti yu bari individuellement ñu ngi bokk ci EFOP mais en même nañ bokk wattu Sénégal am na parti yu nga xam ne ñu ngi bokk EFOP mais bokkuñu wattu Sénégal donc il faut que EFOP euh, gën a dëgëralaat taxawaayam pour seet nag nan lay gën a bokkee sax ci mbirum wattu Sénégal wala mbirum comme li nga wax léegi élection législative yi ñu jëm nu ñu ciy waxtaanee nu ñu ciy tënki en tout cas comme li ñu rappelé li suñu parti waxagum. xam nga nag parti moom mbirum mbooloo la. Mhm. dañuy toog le le le le quatorze octobre ñu xalaat ne nii la ñuy tëralee peut-être mën nañu xaar le quatorze janvier ñu changer xalaat walla changer gis-gis mais ba fi mu toll naa li ñuy wax mooy ñun bëgg nañu bokk si élection législative yi. avec ou sans coalition. buñ ci bokk am coalition moo ñu gënal mais dañu wax ne même bu ñu bokkee ci coalition aussi ña ëpp. ca kandidaa ya suñu parti la ñuy jógee. ah loolu du gourmandise. bu ngeen bokk ay 15 parti ngeen bëgg a jël xaaj bi loolu. gourmandise la du du gourmandise. Ah. du du gourmandise. dañu dañu xam ne dañu xam dañu xam. seen doole. LDR Yeesal mooy lan. dañu xam fan la ay tànkam egg fan la ay tànkam jot. ay Souleymane Ndéné Ndiaye Aliou Sow yegguñu foofu xanaa. non xam nga bu ma bu ma jaxaseeg. Euh, damay laaj rek man damay laaj rek Souleymane ah, Ndéné damay laaj rek man Souleymane Ndéné ak <laughs> Aliou Sow. Hmm. toogaguñu waxtaan ci wàllu élection législative waxtaanaguñ ci ndax bu ñuy wax coalition coalition man man na maa bokkee coalition ak yeneen parti mais sama coalition bi ma demee ci au conseil de collectivités locales coalition la woon ay parti la ñoom ñoo ma joxoon seen récépissé ma tëgg ci coalition tudde de les démocrates réformateurs yeesal donc coalition mën na nekk ak parti yu bare bare bëri mën na nekk ay parti yu nga xam ne sax xañ na euh, parti Aliou Sow du ci bokk wala parti Souleymane du ci bokk wala parti mais mais dama ne ñun li ñu jàpp mooy ba ñu ñu dem ak coalition mais coalition daal bu dee am la ëpp ca candidat ya. ci yéen lay jógee. ci yéen derrière loolu mooy wane ne mu jaañ faa dafa wóolu dooleem de trop quoi. xam nga wóolu sa doole de trop sax moom loolu euh, nit du ko def que euh, yàlla rek moo am. moo am doole ñun amunu amunu doole mais daal euh, peese nañ suñu bopp daal xam nañ daal li ñu jàpp ne moom la ñuy jaar ndax nag euh, kàngaam yi nga xam ne ñoom ñoo composé LDRSL le Sénégalais yu bari xamagul mais suñu leen xamoon xam la ñu teg seen dëkk daañ xam ne LDRSL du lu ndaw mhm. te gëm naa ne suñu demee si élection euh, législative yi LDRSL ak li ci ba mu bokk ñoom ñooy nekk la révélation de ces. xanaa day nekk waar wi ba nga créé woon ba woon Ablaye Wade doole. ba dem mais xam nga waar wi. Hmm. ba ñu ko defee en 2007 amoon nañu près de vingt mille voix yóbbu woon ñetti député assemblée nationale te booba waar wi xañ na man ak Babacar Ba rek la woon tey tey li ñu nekk nii du waar tool la. li nga waar wi léegi. non non xeeb nañu waar wi li ngi nekk nii tool hmm. donc donc leer na ma ne. li ñu mën a totaliser waa ay voix mën na tripler wala quadrupler la ñu amoon si euh, la ñu amoon si si si waar wi te déjà waar wi rek succès la bu nga xam ne ñëpp dañ ko doon dañ ko doon euh, dañ ko doon waxtaanee. Mhm. fas yéene nga sam sàmm euh, sa ndënd élection présidentielle jaamaaloo Macky Sall. LDR Yeesal dafa wax ne petit à petit l'oiseau fait son nid ndànk-ndànk. mooy jàpp golo. ci ñaay ci ñaay. pare nañu HCT wane nañ ci bopp yéen ñëpp Sénégal fu nekk dégg ngeen fa LDR Yeesal fu Sénégal fu ne déjà loolu c'était la surprise lors des élections du HCCT pare nañ ci boobu ñu ngi dëgmal élection législative yi nañ ci dugg ak jàmm génn ci ak jàmm am ci ndam ak jàmm. mais ñun bu ñu demee mën mën a gën wax ci élection présidentielle parce que bu ñu demoon tey élection législative am majorité nag ñooy nekk premier ministre donc nañu bàyyi ba romb élection législative yi soog nag waxtaan ci élection euh, présidentielle yi mm, président waxtu wi jot na mais il faut mu wax ci conseil départemental euh, bi ngay jiitee fële ci Kébémer mhm. tey boo doon xayma lan nga fa liggéey xam nga conseil départemental yi nag euh, dafa am ñoom i tamit li ñuy wax taar congénital maanaam dañoo juddu ak euh, laago ak laago waaw euh, ndax euh, dañoo jël région yi ñu tas conseils régionaux yi ñu tas leen jël le conseil régionaux yi daan daan yor ci budget ñu séddale ko par ñett bu fekkoon par exemple boo jëlee région Louga la ñu jox conseil départementalu Kébémer boo ci fayee indemnité président bi indemnité membre di bureau yi indemnité conseil yi bu ñu dee réunion indemnité personnelle bi nga xam ne conseil régional ba tas. moom la ñu liigan boo leen ci fayee dara du fa des. lu nga xam ne danga ci mën a def investissement ba mën ci liggéey def ci lu nga xam ne nit ñi daañu ci teg seen bët waaye nag au niveau de Kébémer yàlla may nañu chance bu nga xam ne yeneen conseils départementaux yi amuñu ko. mooy lan. mooy def nañu ay réalisation def nañu ay réalisation def nañu. Euh, am nañu ay ay mébét réalisation mooy d'abord amee luñ benn conseiller bor tey am nañ suñu collègue yu nga xam ne ameel nañ seeni conseillers départementaux ay boru session yu ñu leen mënta fay amee luñ kenn arriéré de salaire képp kuy liggéey ca conseil départemental ba su weer jotee yaa ngi fayeeku euh, normalement ensuite daaw def nañu tournée ci école yi amul du amul benn lycée bu nekk département Kébémer bu nga xam ne defuñu fa dara yóbbuñ fa photocopieuse wala yóbbuñ fa matériel informatique CM yu bari collège yu bari yu nekk biir département Kébémer bu ñu leen joxul photocopieuse jox nañ leen euh, matériel informatique wala jëlal nañ leen gardien wala jàppale nañ leen ci seen seen seen seen seen seen seen seen liggéey te réalisation yu nag doo dem ci benn département presque. nga gis ko. ba gis ko fa. donc département Kébémer je crois que ñoom ñu ngi ci leen war li ñu ko may nag mooy yaxanal mhm. président conseil départemental mos a tukki ñoom du ma tukki de. <laughs> mais du tukki seen xaalis. duma tukki seen xaalis. mosaguma mhm. tukki seen xaalis. <laughs> bu ma gisee partenaire yu nga xam ne jar nañu tukki ñu nga xam ne dañ indil département bi lu bari danaa jël ci seen xaalis ba dem tukki mais ba ma nekkee président mosuma tukki mosuma dagg billet d'avion ci conseil départemental tukki. Oh. samay collaborateurs yi tamit noonu. recruter wu may tamit de nouveau personnel pour de la politique politicienne wala wala leen donc loolu moo nu may ñu mën a def réalisation yi nga xam ne ñu ngi koy def ci conseil départemental Kébémer. Modou Diagne Fada ma fàttali ne yaay président les démocratiques réformateurs Yeesal LDR RFM mu lay gërëm di la sant président. jërëjëf Daouda maa ngi lay gërëm d' abord yow di gërëm aussi waa RFM euh, di leen sant di gërëm yi tamit sa kilifa. Euh, rajo bi sa kilifa groupe bi yëpp nga xam ne ñoom itam ñu ci bari vraiment bi tiis bi dalee suma kaw woo nañ ma téléphone wala ñu envoyé ma message bokk ak man euh, tiis bi ñoom ñëpp maa ngi leen di gërëm euh, maa ngi leen di sant. jërëjëf maa ngi leen di jërëjëf maa ngi leen di sant. jërëjëf maa ngi leen di jërëjëf maa ngi leen di sant. jërëjëf maa ngi leen di jërëjëf.